an abi hurayrata radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna awwala maa yuxaasabu bihi alabdu yowma alqiyaamati min camalihi salaatuh fa in saluxat faqad aflaxa wa anjax wa in fasadat faqad xaaba wa xasir fa in intaqasa min faridatihi shay qaala rabbu azza wa jal unduru hal li cabdi min tatawucin fa yukammala biha man taqasa min alfarida thumma yakunu saa'iru camalihi cala dalik jëlee nañ ci abi hurayra radiallahu taala an mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ne li li ñuy njëkk a lijjanti ci jëfu jaam bi ëllëg yowmal qiyaam ci ay jëfam nee na mooy julleem kon julli lañuy njëkk a xool ci jëfu jaam bi nee na bu fekkee julli ga baax na su booba jaam boobu texe na ba pare mucc wante su fekkee julli ga dafa yàqu léegi su boobaa jaam boobu yaakaaram tas na ba noppi mu ñàkk waaye nag bu fekkee dafa indi farata joo xamante ni dafa matadi faratay julli yim doon julli dafa manqué nee na li yàlla di wax mooy daf naan xool leen ci sama jëfu jaam bi ndax am na julli yum daan di ko julli te mooy julli naafile yi su ko defee ñu jël ci naafile yim daan naafile mottalee ko farata ya manqué nee nag jëfam yépp ci noonu ci loolu lay nekk kon julli mooy li nga xamante ni moom la yàlla di njëkk a seet su baaxee lépp baax na bu baaxul nag yàlla du du seet leneen kon nag lu amee noonu solo nit ki war na cee def lum mën waaye farate yi ak li muy am am solo yëpp dinaa fi laa gën a wóor ndax xamuloo ba xam farata yi kese boo ci nekkee dara du ca manqué ëllëg léegi nag soo demee su manqué ñu jël ca naafila ga mottalee ko farata yi manqué moo tax nag naafila am solo.